beneen bi nga xam tamit dinaa ko ñaawlu mooy li nga xam moom la Yoro Dia wax parce que Yoro Dia yore communication président de la république war laa may ngay wax ay njombe yow Yoro Dia li nga wax da laa waroon a jël si yow Yoro Dia li nga wax heure bi waroon naa fekk neen woowee Birame Souleye parce que li nga wax moo gën a garaaw li Birame Souleye wax Yoro Dia yow chargé de la communication de la présidence de la république yow Yoro Dia nekk ministre conseiller de la communication Macky Sall yore communication Macky Sall ci pale bi yow Yoro Dia yaay dem ci émission yow taxaw naan euh, Pastef prolongation wu MFDC lay def maanaam euh, MFDC la muy def ca Casamance doon xeex pour euh, Casamance jël indépendance am nee nga yow loolu la loolu mooy projet Pastef yaa bëri tappale yow Yoro Dia Yoro xam nga la yow du dëgg yow Yoro Dia yaa gën a xam ne loolu d'abord euh, c'est de la diffamation da nga diffamer un parti politique da nga diffamer un leader politique da nga stigmatiser une région mais Sénégal nañu waxante dëgg fii la armée bi def ay communiqué euh, wax ne léegi rébellion bi maîtriser nañ ko te loolu mooy dëgg te loolu la ñëpp di ñaan man ba may dem Casamance de bi gënoon a metti en 98 99 bañ may affecté en Casamance comme professeur au lycée Alain Sitoé Diatta boobu may dem sama mbokk yëpp tiit parce que booba guerre bi mi ngi metti ba léegi mais ku ne xam na ni actuellement Casamance presque dara dara amatu fa te loolu la ñuy kañe sax sunu armée parce que loolu mooy yoon parce que réew mi kenn mënu koo xar ñaar donc aujourd'hui Sénégal ñëpp dañuy ñaan jàmm am ci boor boo mën a jël Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon ñu ne bi maîtriser na. rébellion Casamance ba léegi presque kenn déggatul bu yëngatul loolu lu baax la te loolu la ñëpp doon ñaan moom la Ousmane Sonko di ñaan moom la ñu ànd ak Sonko di moom la Sénégal gépp di ñaan il faut arrêter de diviser le Sénégal taxaw naan Pastef projet bi mu yore mooy euh, mooy mooy mooy euh, xaaj Sénégal loolu waxu caaxaan la et puis li ngeen di wax xamul tax amul sens ki nga xam ne yéen da koo ragal a ragal ba xam ngeen ni bu demee élection day gagné muy Ousmane Sonko. wala ban intérêt la am ci xaaj Sénégal yow ko am mën ngaa gañe Sénégal gépp yow Ousmane Sonko fi mu ëpp doole du Casamance actuellement Ousmane Sonko booy seet fi mu ëpp doole c'est la diaspora Ousmane booy seet fi mu ëpp doole c'est ce les grandes capitales grandes capitales yi boo koy jël mooy da ngay jël dakaar jël Thiès jël Diourbel jël Kaolack parce que Dembo Ndiaye laa dem Kaolack di gis population yi ni ñuy réagir par rapport ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dans toutes les capital yi nga am si dañoo am doole Sonko moo yore doole ji boo jëlee tey Saint-Louis Sonko yore ji boo yoree Dakar Sonko yore doole ji boo jëlee Thiès Sonko yore ji boo jëlee Mbour Sonko yore doole ji boo jëlee euh, Diourbel pour dire Touba Sonko yore doole ji waaw léegi ki nga xam ne moo yore doole ji région boo jël moo yore doole ji mais ban intérêt la nekk ci. nga mën a jël lépp di ko xaaj ñi <laughs> loolu wax dafa c'est-à-dire yow yaa moom yow boo demee élection lépp lan lay jox wala ku mën a jël lépp ban intérêt nga am et puis des fois day am ñaari wax yoo xam sax day woro waa léegi ñoom lu tax ñu Ousmane Sonko daa am des fois ñu ne Sonko daa am ay lobby yoo xam ne pétrole ak gaz bu Sénégal moo leen intéressé waa pétrole ak gaz ak Sénégal bu Sénégal fan la génn génnul ay Saint-Louis offshore ak ay ak ay Dakar ak i que foofu Casamance la. waa léegi Sonko bu jëlee réew mi ban intérêt lay nekk ni non léegi man Casamance kese laa géré léegi Casamance bokkatul Sénégal léegi kon xanaa pétrole beeg gaz ba fa mu génn moom yoonam nekkatu ca non il faut être sérieux ban intérêt la Ousmane Sonko bu jëlee réew mi par exemple di xaajale Sénégal di xaajale Casamance ak l'autre partie du Sénégal alors que yéen nee ngeen richesse yi am Sénégal moo intéressé lépp ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko waaye yéen seen ñaari wax yooyu àndul ci <laughs> loolu àndul bu dee moom daa bëgg a xaajale Sénégal. léegi bu ko xaajalee ban intérêt lay am ci loolu donc loolu waxi kasaaw kasaaw la Ousmane Sonko un li ngeen ba ngeen yàggee wax depuis très longtemps à travers d'abord l'observateur ci élection 2019 yi mu ni Tullow Oil daf koo jox xaalis ma Ousmane Sonko du dëgg loolu ñoom seen bopp bañ ko waxee diffamation bu leer la woon mais booba dañoo bëggoon jàppale candidat bi ñu àndaloon muy Macky Sall mais ñoo la gën a xam la ñu waxoon du dëgg tey jii tamit li ñuy wax ci moom naan ay lobé nekk ci ginnaawam c'est pas vrai loolu lépp c'est pour la diaboliser moom rek lañu fiy diaboliser ci lépp bu leen neexee sax ñu ne ab salafiste la bërki dem boo njaay gis naa leen ñoom ñu bëri ci seen gars yi dem yanuwaat dem songaat télé yi ñoom ñëpp ñu daw songaat télé yi parce que dañuy daw tele yi des fois bu ñu nekkee en difficulté mais dañuy songaat télé yi naan voilà Ousmane Sonko rebel la Ousmane Sonko salafiste la Ousmane Sonko MFDC lay liggéeyal et cetera tappale waaw Ousmane Sonko nan lay nekkee ab euh, salafiste Euh, di gagné euh, capital religieuse yëpp presque moo fa am doole yow noonu ngay gagné yow ña fa nekk ñoom moom la ñu votel ku xool loolu rek war xam ne murid yi duñu ay dof bu ñu xamoon ne Ousmane Sonko mii daa contre euh, seenum sëriñ duñ ko votel parce que moom seen i carte Tijaan yi la même chose bu ñu xamoon loolu duñ ko votel ñoo moom seen i carte Laayeen yi la même chose Ceneba la même chose ah ñëpp si ay kilifa diine lañ fii ne xam na ne fuñ Ousmane Sonko bëgg gis leen dañuy dañ koy ubbil ay buntam moo gis leen seeni taalibe Ousmane Sonko lañ bëgg oui parce que fii senegal taalibe yi seeni carte dañ koy teg ci seen gis-gis ci kin yaakaar ne mën nañoo mën leen yoro seenum réew te du te ñu bëgg seenum sëriñ lool waaye sénégalais dañuy séparer li ñuy wax seen tarixa bi ñu bokk ak seen waaso bi ñu bokk ak ki nga xam moom lañ bëgg àndal ci politique sénégalais yi duñu jaabale yooyu parce que réew mi du réewum waaso réew mi du réew moo xam dañ koy bodd konte ci ay waaso ak ay tarixa ak ay diine ñun Sénégal xamuñu loolu ñun Sénégal benn bopp lañ kenn mun ñoo xar ñaar il faut arrêter ku gis sëñ Cheikh Saliou Mbacké ak xam-xam ba ak ak bëgg diineem ak bëgg xasida sëñ Touba yi xam ngeen ne du ànd ak koo xam day day contre maamam sëñ Touba naan ay daa contre euh, kilifa diine yi il faut arrêter Ousmane Sonko sénégalais la comme tous les autres sénégalais aujourd'hui mun ñoo nekk nag ci réew moo am ab république lañ ko tuddee sax taxaw fi di wax waxi ay diine ki ay waxu tarixa réew mi tënkuwul ci ay diine réew mi ci république la tënku la république est maçonnique république bi nga moom lañ tënku ñun Sénégal c'est une république maçonnique il faut arrêter ñun ñu imaam imam faluñu koo xam ne te même ci côté boobu ñu koy ŋaañ ci mbirum diine kenn raw ko ci ku ci nekk sab tarixa ci ñi nga xam dañuy xëccoo ci réew mi bu ñu duggee ci tarixa yi kenn ëpp ko ci xam-xam ak jaar-jaaru sun mag ñu baax ñi nañu arrêté il faut arrêter sa discours qui divise les sénégalais naan ab salafiste laak ab rebelle laak ab euh, daa am ay lobby yu nekk ci ginnaawam ak tappale loolu lépp ñu koy wax waa système bi la système bi nag bëgguñu mu jeex mëq te ni muut bi bëgguñu mu jeex danoo bëgg nekk di di aakimoo sunu alal ñun ñu ëpp ci sénégalais yi di gobar jaasi bu nu añee duñu reer loolu mooy jafe-jafe bi loolu moo tax Ousmane Sonko ñu ragal ko dañ koo ragal parce que discours bi mu yore day déranger leen bëgg mooy système bi kuy jiite nga bokk ci ku bokkul ci système bi ci paacoori alalu réew mi ku bokkul ci système bi ci jël sunu alal jox ko France France di ñu contrôler di ñu noot di jël ay entreprise am di ñu ko imposer di ñu jaay doole di tibb sunu zircon di tibb sunu pétrole di tibb sunu gaz lépp képp ku nekkul ci loolu dan lay diaboliser fii Sénégal ak ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ñoom lañ tuddee les pays de la France Afrique lii nag bu mu nooteel bii Ousmane Sonko bëgg a dagg naam du tàqalikoo ak France parce que Ousmane sonk moo la gën a xam ne mënta tàqalikoo ak France waaye dañ sama bopp ma la gën a dugg bañ naa la léegi damay xool intérêt Sénégal d'abord comme ni ko Donald Trump di waxe America first dañuy bëgg am président boo xam day jiital Sénégal waaye du jiital intérêt benn groupe bu ndaw bu fi nekk dañu jaay doole ànd ak France lii mooy wax ci groupe boobu bu ndaw boobu nag ñoom ñoo lënkaloo bëgg a jaay doole Ousmane Sonko pour du nekk candidat en 2024 lii mooy dëgg kon nag yoroja yow li nga wax lu garaaw a garaaw a garaaw la dan laa war a woo yow yoroja heure bi waroon naa fekk yow digg woo la yow heure bi daa waroon a fekk ñu naan deuxième retour de parquet pour yoroja parce que li nga wax lu garaaw a garaaw la te li nga wax tegoo ko fenn lu dul ci ay tappale parce que taxaw di jiiñ euh, Pastef naan ñoom euh, dañu dañuy euh, def li nga am moom la MFDC doon def maanaam di jéem a xaaj réew mi nga ne loolu mooy projet PASTEF lool du dëgg yaa gën a xam yow yoro yoro ja que le projet de PASTEF c'est un projet boo xam si li fi nekk depuis 1960 ci réew mi te métti sénégalais yu bëri sénégalais yu ndóol alors que ñu ngi toog ci or ak jaman loolu la ñu wax ni dañoo bëgg mu jóge fi sénégalais yu ndóol te pourtant ñu ngi toog ci euh, euh, géej gi ak jéeri ji ñu am fa gaz ak pétrole Euh, am ci suñu jéeri ji zircon boo xam si ñi ngi koy exploité te sénégalais gisuñu ci seen bopp or boo xam ñi ngi koy exploité te sénégalais gisuñu seen bopp fan koy exploité sax Kédougou fa la nit ña gën a ndóole ku añ doo reer loolu lañ wax ni système boobu la Pastef yor pour bëgg koo doxal yow yoroo ja nga bokk ci ñi nga xam ni tu fais partie de la génération ba nga xam si ñoom ñoo war a nekk la génération de rupture war a ànd ci dëgg nga dem ànd ak ñoo xam ne ci système bi lañ nekk depuis 1960 yow yoroo ja am nañ ñu suñu génération ñun képp ku ànd ci tappale yi nga xam moo fi nekk depuis 1960 da ngay nekk nit koo xam da ngay trahir sa génération comme ni ko France Fanon doon waxee kon Yoro Dia lajj nga Yoro Dia tu dois présenter des excuses au peuple sénégalais tu Yoro Dia tu dois présenter des excuses euh, au militant de PASTEF ti dois présenter des excuses au leaders de PASTEF parce que yow da nga leen a tooñ li nga wax du dëgg ay tappale moo ko lal diaboliser doomu jàmbur moo ko walal ak andi boddi côté Sénégal boo xam ñun xamuñu ko donc ce que Yoro Dia a képp kuy sénégalais war nga ko dénoncer parce que c'est extrêmement grave man quand j'ai écouté ce que Yoro sama xol dafa jeex tàkk ma xool ne xoolal ma Yoro Dia mu nekk dans les dans des manipulations ci ay tappale di jéem a aay aayloo alors que sa bopp bi cox moo ci nekk parce que li nga wax noonu mën na mën mën a jaxase réew mi te réew mi kenn warut a wax lu koy jaxase donc encore une fois je dénonce la dernière énergie cette déclaration catastrophique de euh, de Yoro Dia qui un chargé de communication à la présidence de la République nañu bàyyi nañu bàyyi seen tappale yi réew mi bu ñu fi andi fitna parce que andi fitna kenn du ci gañe kon nañu wut jàmm te bàyyi doomu jàmbur ji ñuy diaboliser doomu jàmbur ji defu leen dara Ousmane Sonko benn déli rek la def mooy bëgg réew mi Ousmane Sonko benn déli rek la def mooy taxaw samp ndëndëm Ousmane Sonko benn délit rek la def mooy taxaw tàllal loxoom ni bëgg na jiite réew mi te yéen ku tàllal loxoom ni dafa bëggee jiite réew mi rek ngeen ne ko wàcceel bu nanguwul a wàcce ngeen diaboliser ko jaay ko doole tëj ko ci kaso bi Ousmane Sonko nag sénégalais yi ñoo ko uuf uuf googu ko sénégalais yi uuf nag moo leen metti ba tax ngeen di wax seen waxi dof fii